I was his fault. jëm mbokk yaakaar naa ne maa ngi fii tay fas yéene leen woon ki nga xamante bi ni mooy équipe bu bi kii may jàkkaarloo nag mooy mbokkam ndeyam Eumeu Sène ñu naa koy Doudou Sané maa lay siyaar. delloo siyaar. si loo ne. sant yàlla bu wër. maa yéen si jàmm. maa a baax. ñu gis ne démb macha allah def nga parcours sans faute nan nga waajee. waa suñu faalu. waaj rek entraîné wu rek pare la. ñoo compétir. lan moo tax démb nga doon yëngal mel ni yow yaa war a dem final da nga suñu gëm-gëm la rek waaw. démb nan nga dundee gars yi Boy Faye ak combat yeneen yi nga ci am gañe ko. waaw Sëñ Fallou tàmm nañ ko tamu nañ ko yàgg nañu di compétir waaw kon lii du lu bees si ñun quoi waaw. démb ëmb lan ngeen déewante yéen ñaar parce que damay gis mu nekk ci kaw nga nekk suuf ngeen di communiquer. waaw ca conseil rek xam nga sa grand moom lay teg si côté rek amul benn problème. Dakar Dakar ngeen am de final. waaw loolu loolu du cas compétition la rek. ok jaajëf lii mooy nga ñëw. waa gis nga bu ñu waaye kontaan rek bëgg rek billaahi waaw di ñaan borom bi na mu motali lépp ñu jël ko yóbbu ko région Fatick quoi. mais Serigne Ndiaye moom nga fekk 120 bi de. waaye loolu du kaa Serigne Fallou. <laughs> duutoo ngi noonu kii ma jàkkaar lool xam ngeen ko ci réew mi ak bitim bandi 40 ans wala bandi 60 ans maa ngi lay ziar. delloo suñu borom bu sant yàlla wér nii rek. démb démb nan nga ñëwee ba macha allah ngeen qualifié li nga xamante ne mooy final. waa jom rek ak euh, ndibalu suñu borom rek. Mm-hmm. parce que ñun ñëpp kenn ku fi ñëw rek da nga da ngaa ñëw pour aussi. Mm-hmm. mais dafa fekk ne dañ leen ko gën a bëgg rek gën leen ko soxla. Mm-hmm. waaw loolu rek lañ indaale gën a soxla bi rek. bi mooy ñaata yoon ngay ñëw chef de l'état. ñaari yoon. ñaari yoon waaw. ban yëg-yëg nga ci am ak nan nga ko gisee. waaw kontaan rek kontaan pour ñëwal sama région rek. mënuma am yëg-yëg bu weesu loolu noonu. dama ñëwal sama région uniquement rek. Mhm. voilà. mais final ngeen dem de te bu ma juum 100 kilos bi yaa ngi fa am liy coor. non man du ma 100 kilos man maa ngi 86 kilos yi. 86 kilos koo fa am kon. Tony Junior. Tony Junior. waaw. mas ngeen bëri. mosu ñëw bëre. loolu dina garaaw de. comme. dina garaaw de yéen ñaar parce que da ngeen a mën a bëre amateur di leen xaar. waaw jeex na mën a bëre nga wax rek bëre koy jeexal rek. suba lu mën a xaar seen diggante Dakar ak ak ak euh, seen ah loolu réponse bi jarul ma la ko wax ñi beeg drapeau bi fate rek lañ soxla du leneen te loolu lay am allah. jërëjëf Ban. ok kii ma jàkkaarloo yaakaar naa mooy seeni mbëru laa njaay bi borom Bargny maa lay siyaar. hello ziar. si loone. ah cool. yaa ngi am jàmm. ah non am premier jour bi xoolal caméra ya mbiru sunu borom moo ñëw. jour ñàkk moo ñëw nag. waaw nu ñëw ñàkk tournoi sama gars yi quatre personnes man ma waaw ñu ñëw war a ñëw individuel waat waaw. individuel tey tey tey ban taxawaay nga am ak kan ngay dajeel. waaw parce que ñàkk nañu tournoi bi individuel moo ñu dese à troisième place. Mhm. waaw jéem ko jël rek parce que man bëgguma ñibbi te du ma yóbbaale trophée mhm. waaw. bii sa première nga ñëw wala sa première sélection. waa bii mooy sama première sélection. si waaw neex na si man. Hmm. waaw bëggoon naa ko ñëw nag jël wante mbiru sunu borom moo ñëw. jaajëf waaw. jaajëf. waaw Amadou maa lay siyaar baax di la. waaw télévision. naka waar. nan ngeen ñëwee détermination ba dem final. ah comme ñu gars yi ñëwee rek waaj ko rek ñëw def lu ñu war def fu def fayda ba yàlla final rek ngeen dem final ngeen war a am Dakar 100 kilos bi yaakaar naa yow ak liy coora ci nekk nan ngeen nar a jongante suba. suba ah comme ni ma jongante démb rek ba jëg si final rek loolu laa fas yéene jongante suba rek incha ba jël ndam bi. Uh-huh. tey par catégorie la kan nga am. man tey suba la am Ibso. Ibso Ibso. xam waaw xam naa ko. mas ngeen a bëri. waaw démb maa ko daan démb. yaa daan démb nga war ko am suba. waaw. loolu dina ah, gis nga. waaw nan nga fas yéenee bëri ak moom ak nan nga fas yéenee servir sa waa dëkk ñi nga représenté. comme ni ma fas yéene ni ma bëggoon moom démb waaw. non non. ah waaw sama dëkk ñu maa leen nuyu di leen gërëm di leen sant quoi yokk ñaan rek waaw indi ma mën indi ndam bi baasu quoi incha allah rabi waaw jaajëf. étirement au chinois. chet ey <laughs> gis nga ko ni kii daamel mel ne dafa jàng karata de c'est pas possible gis nga triceps yi <laughs> baax na ñuy mën a xeex bëre de xaw ma mën nañ ko xaw ma waaye. baadu ba mu sotti. Eh, lu xeetoo xeex. bu seetee amul ñoo ciy seef amuñu si morom kenn du moom. kaay jël ngañ seen. maa lay siyaar baax di la bëgg. waaw cool. yitte. kay naal nan nga ñëwee. waaye ni mu war a ñëwee rek. Mm-hmm. noo bi. xam nga yàlla moo ko dogalul rek. Mm-hmm. tey nga war a dem individuel kan nga am. man xamaguma ko de. xamagoo ko. non nga fit nag. wala <laughs> yow ku ñëw déranger la. ma. Mm-hmm. tey nga fas yéenee wut carrément servir ko sa waa équipe. man loolu yàlla def rek ma xam noonu la ko waaw lu mu war yëpp dinaa ko def. nuyul naa ñëpp. di ziar waa Njagaña di bëgg sam fant club yëpp waa Joal waaw ñëpp daal ziar naa ñëpp waaw kon ayca mi ngi noonu sox sox la ñu naa koy Pape Ngane maa baax di la bëgg. da waar. waar yaa ngi nii rek. nan nga nan nga gisee tey premier jour bi démb noo ko gisee. waaw am naa ji defet waaw Fatick nañ ma par équipe bi waaw mais nag yàlla wax yàlla waxul kenn dara di ñaan yàlla li ci def ñu mutali ko am ci ndam ñu ñëpp waaw mais démb ban jàngat nga def sa bopp bi nga ñibbee at par rapport ak ni nga bëri non man moom boo gisee par équipe bi li ma ci ñàkkal mooy confiance bu ëpp waaw mais lépp nag mbir yàlla la ndax ci ko war a daan di ngay daan waaw ngoor ñaa la ñu perte foofu moom bi ñu ko perte santi naa lu bëri waaw ndax xam naa ne ñi ñi ma féete ci suuf buñ dooree rek mhm. man moom assuré naa li may def mhm. waaw pour drapeau chef de l'État normal ak respect mhm. waaw di nuyu ñëpp nag di nuyu sama supporters yi bu baax a baax waaw tey nga ñëw par individuel kan nga am Djibo Kor sañ laa am xam nga ko Djibo waaw waaw mas a laale waaw daa naa ko trois fois ma deux fois kon da am nga day fay si de ah, waaw mais ñëw nga nga carrément non man aw ma lu may ragal. non ba xam ñëw nga ñëw nga. ndax ñëw na 100 ah, <laughs> pour cent waaw. ah waay 200 pour cent. waaw. damaa mot de. Ah, li may du fii. <laughs> déedéet wala. jigéen dit eh ki ki mooy Ngor Ñaax <laughs> xale bi gars yi miin nañ ko de yàgg naa jaxase booy si loo ne. waar. mu ngi nii rek. ana waa Sonde captage wala waa fan la. man la asalam grand. asalam grand waaw ci loo ne. waaw maa ngi nii rek. demb moom tas nga fi moom mais am nga démb loo am benn defe. waaw waa démb waaw. ok nan nga jàngate bi nga ñibbee ba toog nan nga jàngate li nga bëri. Hmm, xoolaat rek euh, comme maanaam ñun moom ay kii lañ quoi vraiment yàgg nañ di dem ay chef de ay CEDEAO moo tax soo ñàkkee rek da nga xam ne da war a ñàkk mais du occasion bëre mu ne ndaxte ko gis combat bi nga xam ne lii benn erreur la rek loolu moom dañ koy def ci kii incha allah mhm. yeah tey individuel la kan nga am tey tey nag xamaguma gaa yi ñi may am ko vraiment mhm. dëgër nga fit quoi ñëw xamagoo koy am lijjanti woo gars yi daal. man loolu laa mel gars yi eh. ñoo may lijjante kay may man kay <laughs> du ma lijjante kenn. mais ñëw nga 100 pour cent mystiquement daal pare nga. non instant yi hmm. na yàlla xeeb doon. amiin yaa rabbi jaajëf merci beaucoup. macha allah. nit de la. delloo siyaar gu wër. naka tey. waaw tey gi nii rek sant alhamdulilah. démb bi nga ñibbitee nan bi nga ñibbee jàngatee ni nga. waaw xanaa am lu métti rek gaañ. billaahi métti na trop mais nag xëy na ndogal yàlla quoi. Hmm. noonu la demee. Hmm. tey par individuel kan nga am. tey maa ngi am Pape Maron sakku xam-xam xam benn. waaw. daa mel ngeen a bëri. waaw bëri nañ bëri daan naa ko lu mot ay 600 5 0 ah. kon am nga problème tey daa bëgg a fay. Ah, dama koy daanaat rek booy maa ngi leen ëpp doole xëy na dafa am nu mu demee démb rek. est du de confiance bi tamit nii ngay waxee. waaw ah, <laughs> non du loolu sax dafa am nu mu demee rek. bilaahi mais après lépp dina mot quoi si kanam. mais ñëw nga 100 pour cent tey daal yëgoo daal. comme gars yi ñëw naa pour bëri si bu soobee acce waaw. doomu Bental la ñu naa koy Ablaye Ndiaye sama koñ la dëkkoon dafa daw maa ngi lay ziar baax. dolli ziar. <laughs> ci loo ne. lépp jàmm. tey. yaa ngi wax loolu tey du ma wax lu ma wax. non dama laa képp parce que nit daa gis mbokkam. voilà lu leer. démb démb noo gisee premier jour yi. waaw neex na affaire yi neex na de amul premier jour amul deuxième jour neex na. dañ mm. naan daa daje. Mm. waaw. moo tax bëggoo wax daal bëgg jëf ko quoi toog rek ba a wàll. moom la ma ne bàyyi ba si kanam bu soobee yàlla ñu jokkoo. si mm. lay daax <laughs> jaajëf Mor. fii Zambar maa ngi siyaar bu baax. delloo naa la siyaar mu doon tax. ndaka tey sant bu baax noo noo ñëwee tey. waaw gëm-gëm rek. Mhm. ak war a daan gars yi quoi. Mhm, loolu laa ñëwee. Ah. Hmm. démb nan nga gisee premier jour bi nga demee ba seetaanaat li nga doon bëreet ban jàngat nga ci am premier jour bi moom wax dëgg fa yàlla ñun dana amoon ay taxaw quoi ñun waa Kaffrine hmm. mais bu amoon ay bu amoon ay taxaw dañu ñun ñooy ñun ñooy daan ñun ñoo gagné Dakar quoi hmm. parce que booy bi dama koo daan dama ko yërnu mu def trois appui leer naañ Mbaat Diouf mais dafa daan booy bi noonu bëreel avertissement bu teguwut fenn loolu tamit war na koy xoolaat quoi chef de l'état bi seetlu dafa Dakar kese newu fi te boo demee Dakar instant yi nii ñoom bu ñuy bu ñu fekkente ne bi dañuy dañuy jëli mbër dangay dañuy jël mbër yi nga xamante ne ñun ñoo leen mën ñoom ñu di leen fëru si suñ kaw ñëpp ñu bokk ndey ñoo bokk baa ñun ñëpp moo loolu quoi mm-hmm. ok kontaan naa baax ayca Kalidou yaakaar naa ne Koria Serigne Ndiaye de ca combat ba la nekk de combat ba lay seetaan Kalidou combat ba lay seetaan da xëy na bu jeexee ñu waxam ak moom macha allah comme démb ni nga xamante bi nii def na ko gis nga fi mu ne nii vivre yëpp lay def <laughs> ah, lamb lamb daal metti lamb daal a metti combat boobu jeexagut.